Lom Junior ak Dal Ndongo combat bi mooy Pape Ndongo Thank you. Thank you.

rahmatullah mbokk internetu Baol TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo siyaar leen màggal leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax leen wax ne ngi fii nga xam ne moom mooy ci arène nationale ci journée ne ki nga xam ne moom mooy Dieye Production le 14 novembre ci atum 2021 muy combat daj dëpp bi nar a dox ci diggante naaru Sogas ak ki xam ne ni moom mooy Jackson Senior waaye quatrième combat de la soirée moo nekk noonu ci biir géew bi ndaysaan dox ci diggante Ombre ak ki nga xam ne moom mooy fils de Sam Sam ñoo nekk noonu ci biir géew bi ñoom ñaar. ndaysaan ñoo ngi noonu ci biir géew bi ñoom ñaar Omre ak ki ne moom mooy fils de Sam Sam arbitre baa ngi wax ak ñoom ku ci nekk mi ngi lay wax li nga xam ne moom la làmb bëgg ak li nga xam ne moom la làmb bañ ndaysaan fils de Sam Sam moo takk morceau bi ci bopp bi ki xam ne moom mooy Omre kon moom moo ni wan gannaaw ndaysaan Omre ak ki ne moom mooy fils de Sam Sam arbitre bi laaj na la pare ngeen ñu ne ko waaw pare nañ arbitre soufflé na ndeysaan coup de soufflé ba dal na coup de soufflé dal na Omre fils de Sam Sam ña liwaatoo ñoom ñaar ndeysaan Ndeysaan Omrek fils de Sam Sam Ndeysaan Omrek fils de Sam Sam ba tey fils de Sam la ñu jàkkaar lool Omrek moo ñu wan ginnaaw Omrek ak fils de Sam Sam Ndeysaan Jackson a ngi noonu di ma romb Ndeysaan digganteem ak Naaru Sogas tey moom lañ fi xaar ba tey ña ngay léewtoo ñoom ñaar Fils de Sam Sam moo jàkkaarloog ñun Ombre moo ñu wan ginnaaw ku ci nekk ci ñoom ñaar teg pied droit ndeysaan def nañ latéral ñoom ñaar Ombre Fils de Sam Ombre Ndeysaan ña ngay léewtoo ñoom ñaar Ombrella ak ki nga xam ne moom mooy fils de Sam Sam Ndeysaan Ombrella ak fils de Sam Sam arbitre baa ngi wax ak ñoom am na lu muy wax Ndeysaan Ombrella ak ki nga xam ne moom mooy fils de Sam Sam ba tey waaye Ndeysaan dégg ngeen ko public bi ak ambiance bi nga xam ne moom moo am fii ci arène ndeysaan nga xam ne baaxoo nañ ko di dégg dimanche bu jot bu nekk ba tey ña ngay leewtoo ñoom ñaar Ombre fils de Sam Sam Ombre fils de Sam Sam ba tey ña Ombre cokkaas na fils de Sam sigi dellu siwaat ndeysaan loolu kuun na paase wala lu mu doon Om Reug fils de Sam Sam arbitre bi na combat bi lu xew kon dellu ca biir géew ba ndax dañoo jege saako yi ndeysaan ba tey di leen nuyu bu baax a baax amee internet Baol TV fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi mbaa bitim réew ñoo ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax arbitre soufflé waat na combat bi ndeysaan di ziar waa Europe Amérique Italie Espagne bàyyiwuñ kenn ndeysaan Ombre ak fils de Samsam ndeysaan Ombre ak fils de Samsam ba tey ku ci nekk yaa ngi déglu ba lu sa morom andi ndeysaan ku ci nekk da ngay bañ a juum ah waaw ah fils Samsam a ngay jima attaqué Ombre ngay fayu nee na ko dëkkub doole fayoo ko tas. Ah, waaw dëkkub doole fayoo de Sam Sam la ah. ay laay la bi daa mel ni day bëgg a ñëw ci xeex bi. fils de Sam Sam cokkaas na ko ci xeex waaye omre daa mel ni da koy bëgg a wuy si. ndeysaan ngay xeex. omre ak de Sam Sam ña xeex ña xeex. laay la xay la ngay door. fils de Sam Sam jàpp ba bëgg. fils de Sam Sam jàppante na ak moom. Ombre ak fils de Sam Sam jàppante nañ. ndeysaan. ku ci nekk yaa ngay bëgg ngembu ci morom. Ombre. Ombre am na ngembu. ma ne ko Ombre am na ngembu waaye fils de ba léegi. leeragul ci côté am. Ombre ak fils de Sam Ombre la. ak fils de ndeysaan om rek de Sam Sam laa ilaaha illallah de Sam Sam daan na de Sam Sam daan na om rek jël de Sam Sam oh de Sam Sam daan na om rek jël bu rëy ndeysaan laa ilaaha illallah jëlal de Sam Sam Fils de Sam Sam la ilaha illallah ni ñoo wàggal Sam Sam wan ko ne ko dañuy ñibbi fete ko. waxoon na ma ko a bonne presse la. waaye que le meilleur gagne. que le meilleur gagne ndam li génn Sénégal. cosaan bii. di encouragé di encouragé ki nga xam ne. parcelle. dafa parcelle. tey fii. ndeysaan di ko. comme ala boo xam ne yaa ngi koy xaar. ndeysaan ci ba ki nga xam moom mooy Liss Ndiago moom Tapha Mbeur jóge fii. waa ndeysaan ñaari mbëri si digg gi. Ibou Socé ak xale bi mooy yaa xam yaa xam nag yaa nag mooy borom dërëj Aïcha mu ngi noonu diggante yaa xam Ibou Socé yaa xam dem na yeggali cumikaay yi yi si dem. ndax amul xaalis de Ibrahima Déby Ibrahima Seck. Ndeysaan yaa bu bawal la ñu ak Ibou Socé Ndeysaan lamba leen boole ñoom ñaar tey jii 14 novembre ci atum 2021 ci journée Dieye fii ci arène nationale muy ñaari xale yoo xam ne nii ku ci nekk am nga loo bëgg ci lambu muy avenir bu am solo. Ndeysaan Ndeysaan ñoom ñaar ñëpp ñu ngi waaye nag yàlla mooy maye nee leen ba tey fii mooy croisement xaar yàlla fii lañ koy xaare lu am ñu xam ne mooy loolu waaw club yéen gañ ndam li génn Sénégal ñoom ñaar ñi ngi ci biir géew bi ndeysaan arbitre ak ñoom ñoo nekk ci biir géew bi. ñu wax ak ñoom li li làmb bañ. waaw loolu la leen wax lii moo leen di boole lii moo leen di tàqale ndeysaan arbitre baa ngi wax ak ñoom balaa muy doxal li nga xam ne mooy code soufflé ba ku ci nekk da lay laaj ndax bare nga ba dégg waaw ci sa gémmeñ door a soufflé ba ci lool la nekk ak ñoom ndeysaan ñu ngi noonu ay ci arbitre bi suuf la na combat yaa xam bawol ak Ibou Sow waaw waaw ñoom ñaar ci biir géew bi Ibou moo ñu woon ginnaaw yaa bawol moo ñu moo jàkkaarloo moo leen ngeen lu weex li kon bu équipe Texas waaye lamb waxul dëgg lamb doon wax dëgg am ci lamb waaye lamb mooy doxalee noonu ndeysaan yi bu soo seet yaa xam ko wal boo ko xoolee sax da nga naan moom ngay leetoo ñoom ñaar ndeysaan mi jaayu Abdou Sène laat sama laat sama jaar ak bés day cuyu tey tey la 14 laat bu groupe ba eh, waay jël ah, ak yeexam li lan la waaye bu daan nga jeexal waaye nag daanaan doo ko songe noonu déedéet da ngay teey nga xam day génn mais Ibou da koo poñe. poñe na ko si suuf. Ibou Socé yaa xam mu koy dóor dama ko ragal Ibou lamb dafa métti. Ibou Socé yaa xam. léeg nga yëy guro. nga rosaw. léeg-léeg ñu tojjami la sa kanam gi yëpp. Ibou Socé yaa xam. waaw waaw dégg naa gars yi naan du yorob góor. maa ngi laa fay da ciy baax nag ñu dawal yor soose yaa xam yaa xam mooy borom dara ji yu soose moom moo ñëwoon ginnaaw. lamb moo doy waar yaa xam ne xam naa dërëj bi mu ngi daal ay dërëj wax ñoo nekk ci biir géew bi ñoom ñaar mooy Fatou ma ras la Fatma. ndeysaan. ndeysaan lamb lu am na fi. jàppante nañ ñoom ñaar waaw doon doxum. ba tey kenn defagul dara ku ci nekk yaa ngi xool sottal sa diggante sa borom. luy xew Ibou Sose jaaxal ko woon. waaw périr lu mu doon tànte noonu. Siteu na pal. moom da daan naan lamb. neex neex na koy jàngat ko waaye da ko naan boo amee dafa ci combat bi du def grand show ndax li mu ci ëpp. ci carréem def na ko. Ibou Socé waaye enjeu bi. majeur ba nekk ci biir géew bi ñoom ñaar. ñu ngi diglante waaye ñoom itam arbitre tam diglu. <laughs> ah Kaane tëmbalee Kaane xeex yaa xam Ibou Socé ay oh, oh, yaa xale xeex. yaa ko fàqat ko mais bi baaxul. ndeysaan Ibou Socé yaa xam. mu du jàll. ndax ku ci nekk da li sa morom di indi. day waaw. waaye na fekk nag. lépp ko doole. nama naa ñaar kenn daan doon kii bu dóoree kii day. waaw de coupe bëre fa yoo ko tas. tey xaw nga guddee da ngay jéem a tànte leneen. ji ma bëre. munoo cee ne kenn du dara. ah loolu de mooy waaw buñ la dooree nga fayoo de doo doo topp bëre bi. te bu kii di topp xeex bi kii daa war a topp bëre bi. ndeysaan boo xoolee nee nañ ci dañuy door gàcce ci suuf. waaw dina fi wax dëgg sa ah. yaa xam day sigi. ndeysaan ah. ah loolu da ciy baax tamit. ndeysaan ki nga am sens. mais na ko ñaari kàddu. mais yéen a xam ne normal. mbaa duñ ca boole poobar dana tàng de. lay na xam bu soose yaa xam. waaw waaye li bu soose yaa xam. limite. jàlle rokas bu jàlle nga gis ñu yéeme ci lamb ndeysaan ak a mën a fecc nañu yàlla defal jàmm ci réew mi ndeysaan baaru tey daa fecci wut fan yi passé ni ko xew métti na lool la ilaha illallah daa gone ku muy gu ës parlement ay parlement Boy Jackson lii am na ci ñoo xam ne boo dajee doom yi gay nar koo taal kenn waru ah diaspora baa ngi lay bëggee yow itam ah man de lii dama Sénégal Sénégal la am bëggeel la ni ko waay dëgg la bëgg sama waa koñ rafet waa koñ Kader ndeysaan waa koñ ma safoori camion yi rek baax na yaa xam mboolem kuy jaay betoog suuf kuy selecté def quatre-vingt-huitième maa ngi lay ziar dafa mel ni émission bi ndeysaan ñoom ñaar waaw lu met dafa xam borom sa wuy sama ndey o Ibou Sosé yaa xam bu demoon ñorul wala demoon rek Ibou Socé nga toj fii. mu ne lay dëgg gis nga. waaw waaw. loolu yëpp ci jàngat mbëre la bokk. Oh, bu daan doom. Ibou Socé yaa na def dara. ngemb Ibou Socé bi. ndeysaan ngemb yaa xam bi daa toj. oh te dal na. oh Ibou Socé yaa xam oh, combat metti na. kii bu a ma ne yenn coups soirée bu dee dañuy dem naani su. ah boo mënul sàkk bi nooy def. est-ce que doo ci am si si si sax mu tasu. ruy nga mën a naan wala fonde fonde araw bu sew. yu <laughs> soosee yaa xam. <laughs> ndeysaan ay waay bëre ba ngoon jot da ngay naani fonde am na lu ko gën. naka si pexe. bëre ba ngoon jot ma mënoo yooyu ndawal. ñàkk a jëlee ma tubaab bi si. yu soosee yaa xam. ndeysaan ñoom ñoom dañoo doy waar de. ci lamb ñoom sax dañuy ñëw jël ñaar xale yaa ngi bëre waaw waaw ah, ah, ah, waaye ba tey sotiwul ngemb li des na waaye duñu wax ci ngemb li nag ndeysaan ña ngay raak ah man ah am na lu mu xëcc sànni door fay da duñ fi jot dañuy raak. Eh, jël na ko. yaa xam daa kaw eh li def système. waaw daa a génn sax. waaw waaw. maanaam mbër du ragal génn. ay la béykat yi xoolal ma yaa xam. ndeysaan leneen jàpp lépp uti doole. ay na bu demee bu ñëwaatee am beneen système. dëgg la dëgg du xottik boli. mukk ci àdduna. masuma dégg ku wax dëgg. bañ na bëli nga xotteeku na ndax wax dëgg. ndeysaan jëlal. Liss ñëw Liss ñëw na. waaw Liss ngi noonu. Liss la borom jàmm kenn. ndax borom jàmm kenn ngi noonu si gàmm mbaaw Fass mbaaw Fora. ndeysaan. waa jàmm kenn ngi noonu. waaw kon tey man tey yow moom ko suy félicité. la ilaha illallah lii mooy Sénégal ndax diggante ñaari gaar yi am na ci bu gën a saf. ñu ñëw teewal gaar yi a saf. ban moo gën a saf. Guana. Zarko Zarko Mbaye. ah Sadam ak Guana bu ñu demee nu muy mel. Bébé Gouy Gui ak Agogo. xoolal ma loolu. Ousmane Gandigal. waaw kooku ay Ousmane Gandigal. ndeysaan Ibou Ndiaye combat bi nekkoon ci biir géew bi. cinquième combat de la soirée. Perdaas nee na damay may saas loolu yëgoo ko woon. waaw. pare na avertissement. loolu mooy troisième avertissement kon. mais lamb la def si lamb lay. loolu mooy troisième avertissement waaw set nga de moom macha allah. sangu ma gën a tili ah. gis nga tee bi. daa sama yaakaar ñu dagg leen ko bu ñëwee jox leen passe personne bi man. xeeñu ma par foo de. ndeysaan da nga nëbb nit ñi lu may xeeñ waxal beeg. ndeysaan bu naqari xetu netatu. laa ilaaha illallah xeeñ waaw. tey ma xool. ndeysaan te nga lim sa dëkk ginnaaw mënoo lim bawal. Ah, waaw. gaaw lax ba di jaajaay. supp kànja supp kànja mbàq mbaam. Fissel Mbada. Ah, waaw boo dafa am daanu na ba xalangu. da ngay ñëw da ngay daanu ba xalangu. da ngay ñëw si ba soo. daanu ba xalangu. yéen a jàpp ne suuf la guñ ko. Eh, na ñëw maa moom ñu bëre wala sama jarbaat bu bi mais du moog liis nee na góor du yërëm góor. ndeysaan ña ngay daggante. góor day yërëm góor est-ce que xam nga ragal fu tikkee ko yërëm góor fu ay xeex ndeysaan laay laay la xam Ibou la diggante yaa xam ak Ibou Socé bu feebar ba sonn duñ la waaw comme ça ay xanaa xamoo ragal bu tijjeeku xale la moo tax oh, lan la am na ñu koy yërëm waaye wuteeg bi fi jaar ba mu daanoo luñ wax oh ndeysaan dañ koy yërëm. comme góor day combat bi bu dajee yeneen morom yi combat bi su waxee. su ñëwee ma tontu ko. diggante yaa xam ak Ibou Sone Binti Banta. barki yàlla. Eh, Rando Saro mooy wax ak yow. papa Thierno Monique Thé Socé. xoolu ma ko jéem ma kaa mbete lambi ba nekk état de. Ah. waaye mi ñoŋ fort man loolu dawul sama yaram. combat bi daal yow sa tubaab bi dañ la ko woon ba pare daan na. diggante yaa xam ak yu soobee xalango. nan la xalango. rëfal. arbitre bi sifflé léegi Tapha Mbeur féete gauche. lii ci tubaab kaani gi toj. péréblis a ngi si kawam kaani gi toj. waaw. maa ngi lay bëgg. Zokambaran yow dundal. ndeysaan jàppante nañ. ok bon appétit. ah ña ngay xeex yaa xami bu soose. ña ngay xeex. ndeysaan déggal ma yooyu supporter. mbokk dee koy jur. gante yaa xam ak Ibou Socé. ba bi àttewaat na luy xew. ña ngay ay laay lalla. ndaysaan mi ngi noonu. jox nañ ko victoire moom Ibou Socé. ndeysaan ba tey ñu doxal ci sixième combat de la soirée baa ngi noonu diggante Mbacke Faye ak ki xam ne moom mooy Vieux Ba diggante Mbacke Faye ak Vieux Ba ndeysaan arbitre baa ngi wax ak ñoom tifli na ndeysaan arbitre soufflé na diggante Mbacke Faye bu Diaba suma sixième combat de la soirée. fii ci arène nationale Mbacke Faye bu Diaba Mbacke Faye bu Diaba ñaari xale yi attention ñaari xale ñu ko la Mbacke Faye daan Mbacke Mbacke Faye. Thiaw Mbacke day doon ba doon yëkkati ba ca kaw. Thiaw Mbacke Faye fu ay Mbacke foo jëm ma nga. Occident France sept jours bëri bëggeer gerte climat def France Allemagne bëggeer waaw combat bu neex la combat boo xam ne ci grand controverse la waa Guédiawaye info bu indi na forme waaw Narou Sogas li mu indi tey pour mu contrer xale bi du yomb ndax ndax am doole yoo xam ne dina mën a ñaar mais kii su dara ci kawam yaakaar naa Narou Sogas dafa taxaw dëgg la non lii moom dëgg la euh, Narou moom lenn def mu bett ma muy daan waaw tey waaw. avertissement. léegi lu ma lu ma jaaxal. Jackson. xam naa ne ndaanaan la nag. dëgg la def na lu ne waaye ni ma gisee nii. gisuma ne eh, yor na état bu mën a dékku xale bi. waaw ñu xanam ñu xool nag ci kanam. arbitre na ndeysaan mbokk yi. waaw leen di mujjee ki bëtam ñu. télé 14 novembre. fii si stade Arène Nationale Pikine. baal ma seetaan rek 2021 fii si Arène Pikine Arène Nationale Pikine. Naar Sokas ak ki nga xam Naar fu mu nii mi ngi. Naar Sokas ak Jackson ñoom ñaar. maanaam pour jëm koo jumloo. mais xam naa bu càmmante doo gis bëre bu gaaw te neex. lan la Jackson nar def lii naar Sokos daawul def lii sax moom Jackson nar ay yor bu gaaw daaw ko def Jackson da koo kaame rek topp ko. naar Sokos ak Jackson ñoom ñaar. waaw xam nga mag bu bëre ko de. mbokki internet ak ñu ngi nuyu Fréchi àdduna condition. lambu jaa ngi nii. waaw différence de poids. Eh, waaw gauche droite yàlla Naar Sogas day xeex kan la. mais Naaru a taxaw waaw. Naaru mi daa mel ni xeex. da leen a freiné ngeen bàq ko kii indi. ah ku fay la cross. waaw naxtaan waaw. te soo xoolee Jackson ko benn yoon. day gis mu diri ay tànkam. fixé ko gàncax ga mu dox di nuyu ab tuuti ko ci lamb moo diis nga ñàkk entraînement ñëw di di leetoo dama fàtte sama gaay yi di leen bëggee di leen di bishee jël nañ ko jeex na jël na ko jël na ko tuur na ko tuur na ko naar sukaas naar tuur na ko da woon juuma juuma maa ngi bëgg a wax ndeysaan ndeysaan ñuy bëre ñuy bëre waaw waaw waaw Jackson naar sukaas da koy def Jackson amul doon contre boo amul daa mën a bëre mais waaw waaw xoolal ma nit ñi xoolal Koli daan na la jël bu rëy jël daan na ko jël bu rëy internet oh, oh. yi ñu ngi leen di ziar oh, doore feeñ na fi ndeysaan Baol TV la ñu bar fii la lépp di xoolee dama lépp di leere di jaajëfal jël seen xale yi bëre xale mooy bëre dëgg la xale mooy bëre dégg ngeen waaw suñu mbokk internet yi kontaan ngeen ah. bàyyi ko ak yéen. ci kanam ñu dem Jackson fu mu jëm. amul